jërë ngeen jëf euh, mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu yéen ñi nga xam ne yéen a ngi déglu rajo réew mi FM 97.5 seen émission pencum réew mi euh, muy am samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h maanaam ñetti waxtu jàpp ñeenti waxtu ngeen di si ànd ak Abdou Khadre Seck Mamadou Diaw jàll moo nekk ci wàllu machine bi mbokk yi nag euh, tey seen émission pencum réew mi dellu am mbégte daal di dalal nag Gaoussou Koma mi nga xamante ni moom mooy coordonnateur national. Euh, kuréel gii di faxas euh, moo ko jiite waaye tamit mu bokk ci coalition jot na nekk fa coordonnateur national yor fa lépp loo xam ne jëm na ci wàllum relation extérieure moom la ñu fas yéene seqal waxtaan dinañu waxtaan nag li nga xamante ni tey moom mooy euh, actualité ci réew mi tolluwaayu réew mi danañu ko waxtaanee rawatina lu jëm ci coalition jot na ndax xam ngeen ne coalition jot na fa la njiitul fu bokkoon Ousmane Sonko génn fa am na yeneen tamit euh, parti yu fa génn danañu ko daal di waxtaanee ndax euh, doole jëm amoon ba léegi ma nga fa wala déet danañu waxtaanee tamit li nga xamante ni moo jëm ci wàllum xëyum ndaw ñi ndax euh, Gaoussou Koma ndaw la te réew mi. gis nañ ne ndaw ñu baree baree bari dañoo am ay jafe ci lu jëm ci wàllum xëy danañu ko daal di waxtaane dinañu waxtaane tamit lu jëm ci wàllum wàllum boddi gi nga xamante ni ñenn ñoo ngi leen koy boddi ci lu jëm ci wàllum xeet danañu ko daal di waxtaanee waaye tamit dinañu waxtaane élection locale yi euh, dinañu ko daal di waxtaanee euh, ak yeneen ponk yoo xamante ni nag euh, daat na si aju Gaoussou Koma mi FM a ngi lay nuyu. maa ngi lay fay kilifa gi di la nuyu di nuyu sénégalais yi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu yëpp. Euh, di ñaan euh, yàlla mi nga xam ne dara teew ko weeru koor bi nga xam ne ne tàmbal nañ ko ci bisimilahi rahmaani rahim yàlla nañ ko jeexal ci alhamdulilahi rabbil alamin euh, yéen gi ñu am na ko waxtaanee ko tey ci actualité réew mi yàlla na jul njëriñ bu fekkee ne nag am na loo xam ne dëng-dëng la sénégalais nañu xam ne ne sunu matadi la rek la waaye du sunu yéene. jërëjëf euh, Gaoussou Koma yow yaa yor euh, lépp loo xamante ni jëm na ci wàllum relation euh, extérieure ci coalition coalition Jotna coalition Jotna ñu wax si tuuti avant ñuy avancer coalition na gis nañ ne coalition la boo xamante ni tey yéen da ngeen ko taxawaloon Ousmane Sonko bokkoon ci bala ñuy ñëw ci génn gi ci sonk Sonko génnoon. lan moo nekkoon mébét bi maanaam objectif lu taxoon ngeen taxawal coalition jot na. waaw euh, maa ngi lay ziare euh, question bi question bu bu ñu tontu lu bari bari la ba mais ça reste toujours d'actualité et euh, coalition jot na suite logique la rek ndax dañoo àndoon ak la président Ousmane Sonko créé lu ñuy wax Sonko président bu demoon élection présidentielle. yàlla bi ñu defee bi ñu demee élection présidentielle Sonko président am 16 pour cent presque 16 pour cent. quinze virgule quelque chose pour cent euh, bi ñu jógee nag ci élection présidentielle yi coalition Sonko président daal di tas ndax coalition boobu coalition électorale la woon bi mu tasee nag ñu toog ay weer toog nañ ay diir daal di wax toog toog bi ñu demee ba ci biir euh, Ousmane Sonko ak kilifa yi ñun ñëpp ñu toog waxtaanaat ñu ne war nañ jëmaat taxawal beneen coalition waaye bu boobaa nag dootul nekkati une coalition électorale ndax élection ñëwagul dañuy daxal dañuy wax une coalition. Euh, politique coalition boobu nag euh, ni muy demee mooy euh, dañuy am nit boo xam ne ne ku mel ni dañuy waxtaan suñu biir dem bu élection ñëwee ñu xool kan moo gën a taxaw suñu biir te jamono jooju wax dëgg yàlla gisoon nañ ne Ousmane Sonko moo gënoon moo gënoon taxaw ci ci biir coalition bi ñu préparé ko pour naka lañ koy encadrer naka lañ koy ngembee pour ñu dem en 2024. coalition bi nag commencé woon na taxaw wax dëgg yàlla commencé di déployer di liggéey liggéey bu rafet sur le terrain. ñu dem ba ci biir nag après ci la voilà li ngeen xam lépp xam ci la fu génn Pastef nag bi mu génnee euh, au tout début wax dëgg yàlla euh, xawoon nañu li laal tuuti. waaw mais bon du woon Pastef kese mais boo déggee Pastef génn mooy que ne Pastef moo nekkoon parti bi gën a représentatif quand par rapport ak ñeneen ñi fa nekkoon ñeneen ñi génn nañ. mais seen seen génn waaw mais bon Boubacar ku baax la sunu grand la mais génn Pastef daal moo ñu gënoon ndax ñëpp mënoon nañ génn. Pastef bu desoon garaawut waaw parce que poids électoral bi Pastef am ak ak ak euh, lu muy ak Ousmane Sonko lu muy représenté du ma wax sax Pastef mais Ousmane Sonko lu muy représenté ci réew mi moo taxoon bi mu génnee mu xaw a yëngaloon nañu tuuti. Mm-hmm. waaye xam nga politique moom euh, réel politique la te ñun ñi nga xam ne ñoo jëlee Ousmane Sonko ci plus fort reste indi ko tey ba 16 pour cent yi ñàkkuñu ay pexe pour xool naka la ñuy redressé waat euh, boo xool diggante boobu ak léegi daanaka lu mat fukki. parti et mouvement ñëw nañu rejoindre cest di dire coalition bi tey la gën a taxaw tey la gën a am doole. tey zone yi nga xam ne dañ demuñu fa woon sax zone yi nga xam ne daanaka dañ fa xawoon euh, néew doole. ay lu mel ni ay Vélingara ay Kédougou ay yenn zone yu ruq yi ci Tamba ay yenn zone ruq yi ci Casamance zone yooyu yëpp yàlla mu ngi def na ñu ngi ñu ngi ci ñu ñu ngi ci fu mu nekk nii yàlla dafa def dañu am chance coalition bi am ku mel ni le président Ablaye Niane le docteur Ablaye Niane di nit boo xam ne nit ku am xam-xam la nit ku am taalibe la nit ku intègre la jiite coalition bi te nekk borom xam-xam ndax boo fa bu ñu fàttali ko Ousmane euh, le président Ablaye moo jiite woon moo nekkoon directeur de campagne élection présidentielle yi maanaam wàllum xalaat wàllum naka la ñu waroon euh, mayee le territoire national et international yëpp daanaka xalaat li ci ëpp li ci bari euh, da doon jógee si si ñeneen ñëpp waaye moom bokkoon na si ñi ñi ko ñi ko doon gën a euh, ñi ko doon gën a xalaat ba tax na kooku tey bu fekkee ne dafa nekk ci coalition bi ku mel ni Bruno Derneville mi nga xam ne moo nekkoon président coalition bi des ci coalition bi ki ki nga xam ne maanaam moo nekk Arona Touré yi ngay dégg ci coalition bi yëpp boobu ba léegi doon ko xalaat doon ko bind kooku des ci coalition bi man mi nga xam ne maa nekkoon le chargé de relations extérieures man ma nekk ci euh, Ndeye Sow euh, Leila nekk ci euh, waa TS 1924 ñoom Père a nekk ci ainsi de suite ainsi de suite mën naa ne ature bi dafa des c'est-à-dire ñi doon yëngal dëgg-dëgg coalition bi demuñu. loolu moo ci gën a am importance maa ngi dégg ñi wax ñeneen mais am na suñu bëri ñu ñu tudd sax ñooñu certes génn nañ waaye bi ñu arrêté seen activité après euh, lendemain élection yi ñooñu daanaka kenn gisatu leen ci coalition bi donc ñun ñoo continuer di liggéey ñu ko woon di liggéey nag ñoo fi des tey moo tax tey yàlla alhamdulilahi rabbil alamin coalition bi tey la gën a am doole coalition bi tey la gën a taxaw ndax gis nga tey amul tey départ mais bi euh, comme ni nga ko waxee ñooñu même bu doon tey ñoom bokkoon nañ si ñi nga xam ne ñoo doon doxal mbirum stratégie yi euh, si jamonoy euh, élection présidentielle 2019 ñooñu mën nañoo wax ne ñeen ñi ay homme de l'ombre lañu woon à ab Ablaye ñaan am na ñoo xamante euh, ne xam nañu ko yow jiite nga faxas dem nga faxas dem na ci ay élection mhm. législative mais à part est-ce que yeneen teet yi Sénégal yi euh, Sénégal yi xàmme nañ leen wala fës nañ tey ci ci kanamu sénégal yi. waaw waaw bu baax a baax a baax ndax le président Abdoulaye ñaan demoon na élection législative moom rek amoon na presque dix neuf dix sept mille voix ñun dem nañ ñun rek élection législative am nañ benn député Bruno Denneville candidat la woon à l' élection présidentielle yële bopp yii nii yële yë yële passé Arona Touré euh, euh, ñëpp xam nañ ko candidat la woon moom tamit. ci commune am donc bëri na ay cadres yoo xam ne ñëw waaye li ci gën a neex mooy tey ku mel ni Moustapha Wade mu ngi fi Moustapha Wade eh, kenn du ko ci Idi Idi Idi 2019 la bokkoon te bokkoon na ci kilifa yi euh, Mamadou Ndiaye ancien candidat euh, élection euh, à la candidature à l'élection présidentielle la woon donc am na ñeneen ñu bëree bëri ay ñoom ak i ay ay ndaw ñoo xam ne ay ñu engagé ñoo xam ne ñu am xam-xam ñu am yéene xam nga gis nga réew damay faral di wax ne ne nit boo bëggee doxal réew réew du benn nit moo koy doxal du ab Ablaye ñaan moo koy doxal du gaw su comment moo koy doxal du du Abdoulaye du du Abdou Khadre Seck moo koy déedéet c'est tout un ensemble ensemble boobu nag bu ñu organiser woo teg lu dëgër pour ñu déroulé ko dañuy def ndax ñu tey dañoo amoon benn chance jot na euh, mooy lépp lu ñu war a def fii ba 2024 daanaka dañu ko bind. nga xam ne ne ñi nga xam ne jóge nañ fa dañuy jël ay nit rek. est-ce que le programme Sonko président. waaw non non ñu bëri dañu defe ne non non programme boobu sax du programme Sonko programme boobu ñun daanaka ñi ñi les têtes pensantes sax ci programme boobu ñu ngi ñu ngi des ba léegi ba nga xam ne ne tey ñëpp ñi nga xam ne jógowoon nañ dañ leen jël xool ay nit ay profil yu xaw a méngoo ak ñoom ñu tag leen fa moo tax fu mu nekk ñi ni déroulé te bu fekkee ne xool nga actualité bi di nga gis ne ne tey coalition jot na bokk na ci coalition yi gën a fës ci jamono yu may yu may wax ci dans la scène politique. d'accord léegi tey euh, yéen coalition jot na tey bu Ousmane Sonko ñëwoon tey élection législative ñëw. Mm-hmm. su nangoo ànd ak yéen liggéey ndax pare ngeen pour dem ànd ak moom liggéey ndax gis nañ ne bi mu fi amee ay jafe-jafe euh, yéen coalition bi doon ngeen ko taxawu bi mu ci génnee tamit euh, ñëw na seet si leen. fan la seen relation toll nii. xam nga euh, Ousmane Sonko du wàllu sax politique usman sunu xarit la sunu frère la donc te politique bi ñu boole. ñi ànd si ñun ñëpp moom il est dans l'opposition ñun on est dans l'opposition ñun dañoo wax ne ne que ce soit Ousmane Sonko que ce soit keneen ñi nekk ci opposition bi yëpp élection yii di ñëw élection yeneen yi di ñëw dañoo war a def bloc nekk benn opposition bi bis bu ñu taxarle ko du ñu am dara waaye bu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu fexee ba defaat le remake de 2019 de 2009 fexe ba booloo nekk benn bu boobaa dañ am chance u ji gagné département yu bare bare bare bare bare bare ak conseil départementaux yu bare bare bare au niveau au niveau national d'accord euh, mais Gaoussou Koma li nga xamante ni tey moom mooy coalition jot na euh, man coalition jot na li ma ci xam euh, jàpp naa ne bokk na ci coalition yoo xamante ni tey structuré wuñ ko tey par exemple tey yéen seen coalition bi est-ce que am na benn kuréel boo xamante ne puis ñii pour ndaw ñi la ndaw ñu góor ñi ñii pour ndaw ñu jigéen ñi ñii pour femmes yi la ñii pour cadre yi la ñii pour étudiants yi la ñii pour nangam est-ce que am na ci coalition boobu. waa xam nga tey dama lay wax ne la euh, Sénégal te ñi nga xam ne ñu ngi ñuy reso ñu ngi ñu ngi ànd ak ñoom ak organisation yi ñu commencé bokk ci opposition bi ñoom ñëpp xam nañ ne bu fekkee ne am na lu organisé rek tey coalition jot na la c'est-à-dire mooy nee naa la mooy l'une des rares coalitions au Sénégal boo xam ne lépp loo xam ne ne. banqaas la lépp loo xam ne ne ay texte la lu ñu war a organiser yu ñu wax cest à wax gi may wax ay yow dox gi may dox ak yow invité nga ma mais mënu ñëw dafa am koo xam ne yow faa nga wax moom pour ma mën a ñëw c'est-à-dire tellement structuré tellement organisé nga xam ne moo tax ma ne la tey bu fi bu 90 pour cent ñi ko ñi ko ŋànk bu ñu fi jóge woon bànqaas yi tey bind nañ ko. bind xam ngeen ay structure waaw moom laa la xam nga structure yi mooy bànqaas yi c'est-à-dire amul structure tey booy gis ci wàllum politique bu amul si jot na. cest à moo tax ma ne la tey jot na bu fi 90 pour cent ñi fa nekk jóge woon day dox xam nga lu tax muy dox mooy structure yooyu mooy bànqaas yi nga xam ne moo ko moo ko ŋànk ku fa fu jóge fu ne tey am na am na am na am na am na am na am na bànqaas boo xam ne moo yor ndaw ñi am na ñoo xam ne moo yor moo moo moo ñoom Moustapha Diouf am na ñoo xam ne ñoom moo jigéen ñi euh, euh, ñoom. maanaam euh, jigéen ñi am nañ présidente. waaw am nañ présidente Ndeye Sow Leila am nañ bànqaas boo xam ne moo yor mag ñi. ñun ñun ñun cadre yi ñun ñun euh, charge yi euh, ñun pergora am na bànqaas boo xam ne moo yor cadre yi am na bànqaas boo xam ne moo yor maanaam wàllum lépp lu jëm ci wàllum communication am na bànqaas boo xam ne moo jëm ci wàllum sax média euh, médiation am na ci beneen comité boo xam ne comité exécutif national la nga xam ne ne ñooñu ñooy xalaat bu ñu xalaatee ba pare daal di am conférence des leaders tous les leaders toog ñu sotti ko bu ñu sottee ñu waxtaan suñu biir ah lii lañ war a def lii lañ war a def lii lañ war a def donc dañoo organiser ba nga xam ne tey man nekk gi ma nekk ci biir coalition bi mënu ma def lu bari ndax dañ lay tënk lépp ci ay texte la boo waxee rek ku mel ni euh, jigo administrateur bi da lay envoyé ne la ah article temps ah ndangam nangam lii ah lii ah lii te yow ci loolu ngay te ci yoolal ngay kii ba pare lépp lu ñuy def tey c'est une présidence tournante lépp lu ñuy def dañ koy waxtaanee bu ñu ko waxtaanee majorité bi mooy voté tey am na benn nombre boo xam ne sax bu teewul réunion bi maanaam du daanaka du mën nekk. donc organisation bi ñu am moo ñu permettre tey coalition bi mën a mën a mën a mën a mën a mën a mën a tenir mën a mën a mais euh, mais Gaoussou Koma euh, yow yaa yor lépp lu jëm ci wàllum relation extérieure mm-hmm. mais seen coalition jot na mm-hmm. euh, yéen a ngi ci rajo yi ak ci télévision yi mais est-ce que tamit yamu leen Dakar kese wala yemu leen ci télé yi ak ci rajo yi est-ce que réellement génn ngeen ci yeneen région yi ak ci diaspora bi ndax mën nga ñu si indil ay explication kan coalition jot na ma ngi ci yeneen région yi yemul Dakar kese. waaw mais xam nga tey li ngay wax nii euh, boo xoolee fi may waxee yow nii nii nii fi ñuy waxtaanee nii ku mel ni le président Bruno Deneville fi may waxee yow nii manifestation daanaka yi gën a mag funjuñ tey it mu ngi koy organiser fi may waxee yow nii ndax defar na fa clinique dentaire defar na fa boulangerie. taxawal na fa di jàppale ay ndaw pour ñu liggéey ci wàllum sécurité ak leneen moom Bruno Denneville ci biir coalition bi Foundiougne laa la wax mu ngi Foundiougne fi mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi Mbacké Touba li ko wër fi may waxee yow nii semaine bii ñu passé mën naa ne manifestation politique bi gën a mag ci région euh, de Fatick kan moo ko organisé Moustapha Wade te ñu la bokk donc fu may waxee yow nii am na si ñoomin daabo ñu ne waa Tamba yi ñu ngi nekk di dugg xoolal euh, tey dañoo toll foo xam ne jot na fépp la déployer un peu partout à travers Sénégal te ñi ngi nekk di liggéey liggéey boo xam ne euh, liggéey de massification boo xam ne gëm nañ ne ne bariwul euh, euh, parti organisation politique yu ko nekk def. lu tax lu war a loolu mooy li ma la wax rek mooy que ne dañoo am ay bànqaas tey dafa am ay axe dañoo def lu ñuy wax ay axe c'est-à-dire axe Dakar ba Thiès man maa ko jiite axe Thiès Touba Ablaye Niane moo ko jiite axe Tamba ak zone yooyu. Euh, ñoomin euh, Daaboox Layla ñoom ñoo ko jiite axe Fatick kawlax ñoomin euh, bir ki ki Mamadou Ndiaye Moustapha Wade ak Birno Dirneville moo ko jiite axe axe Ziguinchor ñoomin Diattax ñoom ñoom ñoo ko cest à zone bu ne axe bu am na ñoo xam ne ñoom ñoo ko jiite ñoom ñoo ko jiite donc loolu moo ñu permettre ñu mën a déployer wu un partout à travers le Sénégal cest à dañuy mën a maye euh, le Sénégal en un accord d'accord naa Gaoussou Koma mais nag euh, problème bi mooy élection euh, li nga xamante ni tey moom mooy élection locale ndax yow sànq nee nga opposition bi il faut ñu booloo te pour ngeen booloo ci élection locale tamit il faut que ngeen def loo xamante ni tey lu yanu naa la ndax yow bu ñu ñëwoon tey coalition bi opposition bi ñëw Pikine mën nañu ne tey nañu euh, ñoom danañu d'accord investir euh, Gaoussoukouma pour mu jiite jiite ñooñu tey boo ñëwoon fu mel ni tey euh, Mbacké mën nga ne tey Ablaye Niane Ablaye ñaan ma nga fa mais yéen bëriwu leen ci yeneen département yi wala yeneen communes yoo xam ne yéen seeni nit am nañ fa yenn base politique ndax tey par exemple tey yéen am na localité yoo xam ne tey bu ngeen fa demoon du yanu maanaa ngeen yéen seen candidat ngeen di samp te yéen ah. kese bu ngeen demalee seen bopp problème ah, lay jur non non xam nga politique moo demee noonu ñun dañoo nekk ci phase massification fi may wax yow nii suñu objectif bi ñu fixé wu féex août balaa août mooy que ne commune boo dem ci biir Sénégal quarante 547 commune yi xaw ma def naa commune boo teg tànk Sénégal nga ñëw fekk fa benn benn membre coalition jot na ndax tey am na ay département yu bari amuñu fa woon ay nit fi may wax yow nii léegi am nañu fa ay nit ay kilifa ay représentants yu dëgër représentant départemental départementaux yooyu kenn ku nekk sa liggéey xam nga mooy nekk lan mooy nga fexe ba commune bu ne fi nga dëkk nga am fa benn nga nga nga nga am fa benn nga am fa benn représentant maintenant élection locale mooy demee noonu tey da ngay xool dakaar bu ñu jëlee Dakar opposition bi yëpp ne Dakar de profil bii mooy foor mën a dem dañuy dem tey opposition bi Pikine mais commencé nañ liggéey fi may waxee yow nii tey ñun ñëpp ñu ngi nii toute l'opposition amul benn parti opposition PDS euh, waa Khalifa euh, waa Faxas waa Sonko ñun ñëpp ñu ngi toog ñu kilifa yi ñun ñëpp ñu ngi toog ñu ngi waxtaan. waxtaan nañ suñu biir ba déggoon nañu wax nañ ne ñun ñoo war a mun a ànd Pikine commencé nañ ko. pour pour mën a gagner waxtaan commencé nañu waxtaan naka lañuy def pour changer politique bi. au niveau du département de Pikine fu may waxee nii commencé nañ loolu donc loolu noonu ñu commencé foofu la ñuy loolu la ñuy def un peu partout euh, dans tous les dans les départements du Sénégal. waaw d'accord jërëjëf euh, Gaoussou Koma mbokk yéen a ngi déglu mi FM léegi ñu dugg nag ci li nga xam ne mooy élection locale yi tey euh, li nga xam ne mooy élection locale yi yéen yéen a ngi ne sax yéen a ngi dajee mais yéen xamu leen kañ la ñuy organiser élection locale yi te gis nañ tamit taxawaay bi nga xam ne moom la ci opposition bi war a amee pour exiger. Euh, régime bi ñu organiser respecter li nga xam ne mooy calendrier électoral bi yéen dafa mel ni amu leen yenn exigence yoo xamante ni tey yu am benn dayo bi la pour mën a jàmmaarloo ak régime bi ñu respecter calendrier électoral bi. waaw li nga wax moom bu njëkk mënoon nañ ko nangu waaye fi may waxee yow nag euh, wax dëgg yàlla opposition bi euh, yëngatu na boo xoolee FNR front bi nga xam ne man ci laa bokk maa ngi dem ci réunion yi. Eh, def nañ ci ay bataaxal barki Dembo Ndiaye lu yàggul dara wax suñu position boo gisee jàmbarloo bi ngay wax ñun jàppoon nañ bés ah opposition bi yëpp jàpp nañ bis pour wàcc télé bi wàcc télé euh, télé bi jàmmaarloo ak Macky Sall jàmmaarloo bi nag duñ ay sànni ay xeer déedéet def ay marché pacifique wax la communauté nationale et internationale que ne ñun dañoo bëgg dem élection ndax réew lu koy doxal bokk na ci dundunu réew doomu aadama boo boo xiifee mbaa nga mar da ngay naan ndox waaye réew bokk na ci lu koy dundal mooy dem ay élection élection boo gisee nag lu tax wàcc googu ñu waroon wàcc télé bi mooy que ne dañoo am koo xam ne suñu sëriñ suñu kilifa du suñu lépp du suñu yaakaar àdduna àllaaxira muy suñ muntaxaa suñ muntaxaa dafa am lu mu waxtaanoon ak ñun yóbbante ndaw boo xam ne ndaw ndaw lu ko mat ñëw ba si ñun fekk réunion ñoo maa ngi fa woon ñëw waxtaan ak ñun wax ñu yóbbu lu sëriñ bi mais loolu bu amee ñu wax dem ba wax jàppoon na ne war nañ mën a marché am ñoo xam ne ne dañoo ñëw ñu ne ah ndéem sëñ bi wax na lii nañu teg ne teg déglu déglu déglu déglu ko waaye déglu ñeneen ñi. loolu moo tax fu mu nekk nii ñeenti rek waaye suñu am tewul nag am nañ ci position position yi mooy dañoo bëgg ñu organiser élection yi au plus tard décembre 2021 techniquement c'est possible maintenant ñu ngi leen di déglu ñoom bu ñu leen dégloo bu ñu amoon bu fekkee ne ne euh, réagir ñu ou bien doxul ñu wan doxul ñun am nañ kilifa suñu kilifa mooy sañ mun Muntaxa nañ delluwaat sëñ Muntaxa comme dañ ko defee woon waxtaan naa tax moom wax na ko ah ñii bu boobaa sëriñ bi nag la ñuy déglu ndax jàpp nañu ne tey euh, toll nañ ci réew mi foo xam ne ne. Eh, sunu kilifa diine yi eh, seen seen seen dëgërlawaay ak seen taxaw ak seen taxawaay ci réew mi ñun bokk nañ ci ñu ko gën a dëgëral waaye ci ci kaw ñiy déglu ndax xam na ne ñoom fi ñu fi fi ñu jëmee loolu mooy. suñu léegi majorité bi lan ngeen jàpp ne ñoom. Euh, moo tax ñoom mënuñoo organiser li nga xam ne mooy élection yi. waaw non loolu analyse personnelle laa ci def te def yàgg naa ko def def naa depuis. Euh, mais ñoom lu ñu wax ñoom non ñoom ay waxi naka sa kandang ñoom waxuñu dara lu lu lu ñoom am wax li ñuy wax amul bopp amul génn problème mu majorité bi lenn la. ah mais auditeurs officiels yi aussi. mais xam nga yooyu yëpp ay wax moom laa la wax rek loolu yëpp day dugg ci biir. ndax mais yéen a doon sàkku auditeurs officiels yi. waaw non non moom moom laa xam nga loolu yëpp ay waxi xam nga yooyu ay. non mais non yéen a doon sàkku ñu auditeurs non dama lay wax ne la gis nga yooyu yëpp ay ay ay ba léegi rek ci tappale bi la dugg Macky Sall bi muy oote dialogue dafa fexe ba jël Idrissa Seck ak ñeneen ñu ñu bari bi mu ñëwee fexe ba cadre boobu ay audit officier bi boo xool ñi nga xam ne ñoo doon wax yooyu audit officier affaire yooyu yooyu ñoo ñëpp ay Omar Sarax ay clip boobu yëpp doon rey seen bopp ci loolu ñooñu après xam nañ fi mu jëm ay élément Macky lañ ñu nekkoon suñu biir après on a tous compris ñun dañu yàgg wax na ne mën nañ audit officier mais bu mu tee fichier bi nga xam ne moo ñu yóbboon en 2019 war nañoo mën yóbbu élection mais waaw mais nañ ko auditer defaraat ko ba nga xam ne élection yeneen yi nga xam ne day ñëw ñu gën ko defaraat ci anam yoo xam ne day gën a transparent day day gën a leer maintenant lu tax Macky Sall préwulu pour organiser élection yi mooy que ne Macky Sall il sait que ne élection yii di ñëw mooy dernière élection locale am te ñi nga xam ne ne ñoo nekk ci coalition Benno Bokk Yaakaar fu mu fu may waxee yow nii demal par exemple fu mel ni Pikine mais Pikine mu ngi tas amul commune booy dem commune laa wax booy dem lu dul am na fukki candidat yoo xam ne yu benn Bokk Yaakaar wax ma APR rek ah Benno Bokk ku nekk kenn an du nangu ànd ak sa morom parce que Macky bi muy fal les maires beaucoup de maires par exemple boo jëlee département Pikine maires yooyu nekkuñu woon sax les coordonnateurs bi ñu liste bi bu mu gañee day woote groupe bu nekk rek wala pale nga ñëw mu ne jiital leen jiw jiital leen diw fekk di kooku nekkul sax nekkul woon sax euh, cinquième ci ci waaw sax candidat ou bien mais dafa nekkoon ci majorité bi noonu rek mais parce que am na ay affinité ou bien am na benn xaritam bu ko am ou bien benn au fait noonu lañ defoon ba ko tey boo jëlee kaaw yëmbal noor ki nekk maire bi Daouda Ndiaye mais nekkul woon sax c'était pas le potentiel candidat de de de kii coordonnateur ba ñeneen ñëpp dañ leen noonu mooy indi guerre à l'interne boo xam ne Iran Irak bu métti li amoon 2009 avec Ablaye Wade lu ko raw mooy am te li ci gën a garaaw mooy Macky Sall tout le monde sait que ne Macky pare na troisième mandat moom léegi wax jooju pare na ci. léegi tu penses que ne Macky en 2014 élection yi bu mu ñëwee boo demee région yu bëri lu mel ni ay Thiès mënul woon dajale parteem te boobu la ñi gënoon am ci moom yaakaar nga defe ne ne en Euh, en 2021 Macky Sall dina mën doole bu mu amul woon en 2014 mën na ko amaat en 2021 bi nga xam ne moom ñu ne leer nañ ko parce que problème de survie politique la tey benn leader bu nekk Benno Bokk Yaakaar mbaa bu nekk APR mooy nangu moromam di ko jiite parce que xam na ne bu demul leader bu ci leader politique bu ci demul élection locale yii politiquement tu es mort mooy que ne la nouvelle reconfiguration xam ne ne day am juste après les élections locales yow dootoo bokk moo tax xeex bu méttee méttee méttee méttee méttee. méttee da nga da nga jàpp ne tey Macky Sall euh, mënutul indi ordre ci benn bokk yaakaar. non non loolu techniquement théoriquement mënutul ne parce que Macky ne tient plus les ren c'est-à-dire Macky géreetul tey boo gisee lu tax Amadou Ba di tëgg di di di di di gérer ay boyam si suuf ay Matar Cissé. Aly Ngouille Ndiaye ay Mimi Touré yooyu yëpp ku ci nekk di daas fanaanal di wër Macky moo la gën a xam ne ne moom yoratu lu dëgër ba pare yi dafa def euh, une fausse calcul euh, un faux mooy que ne bi muy jël Idrissa Seck di ko teg ci wetam dafa jàppoon ne Idi buy ñëw day day àndaale Idi euh, Idi 2019 Idi bi muy ñëw mënul moom ak famille rek a dem mais même ñi nga xam ne ñoo ñoom ci ñoom la gënoon yaakaar ñoom ñëpp dañ ko bàyyi donc du coup problème bi gën a garaaw bi am. mooy confrontation day am Macky ñaari accès moom mooy ubbeeku ci moom benn bi ñu ànd ak Idi ñu ànd ak Macky du ñu nangu ñoo ñu jiite leen beneen bi mooy ñi nekk Benno Bokk Yaakaar du nangu ñi ànd ak ñi euh, di kon di di leen suul parce que ñoom tamit dañoo bul fàtte ne bokkuñu APR dañoo bokk seen i parti te seen parti yi ñu bokk dañuy bëgg parti yooyu. te dañoo gis ne Macky Sall day fexe fu nekk rek nitam nekk fa. waaw waaw non mais leen naxoon dafa mel politique politique noonu la kenn ku nekk da ngay nax sa da ngay nax sa waaw da ngay. mais mais yéen Gaoussou Koma yéen nee ngeen euh, décembre 2021 mais yéen tim est-ce que nit ñi nag xam nañ réellement yéen lan ngeen bëgg ndax de yéen décembre 2021 décembre lan moo si topp décembre janvier moo si topp 2022 ñëw. yéen lan moo tax mun leen a nangu fii benn weer ñaari weer loolu moo moo écart bi. waaw mais xam nga ñun lépp lu ñuy def dañ koy teg ci lu leer dañ koy teg ci xam-xam boo boo génnee décembre 2021 yi c'est en juin ou juillet 2022 donc Macky Sall bu yóbboo élection yi mm, euh, février mbaa mars élection locale yi bu yóbbu yóbboo février mbaa mars 2022 xam nga loolu da nga naan garaawul 2 mois la intervalle 3 mois mais c'est grave lu tax c'est grave mooy que ne 3 mois yooyu day fekkaat yeneen 3 mois yi nga xam ne moo war a def élection législative mais bu boobaa dañ naan sénégalais sax boo taxawee naa leen élection législative dañ naan ñii dañ yabaate boobaa moom day organisé naa élection euh, locale il y a même pas un mois euh, bëgg demaat dans deux mois élection législative duñ ko def donc nañu repousser waat élection législative bi bu ñu demee repousser élection législative yi mu jéem ko def ay ay vingt deux mille vingt trois fin deux mille vingt trois affaire yooyu defaat ba boobaa mu ne ah législative yi bi ñu ko organisé yàggul léegi nañ jéem repousser waat élection présidentielle yi c'est-à-dire ci logique boobu la nekk di dox ñun on l'a compris moo tax duñ ko ko nangul ndax xam nañ ne yi li mu bëgg mooy repousser élection législative yi élection locale yi nekkul problème ma ah. Macky même bu porté bu perdre tout le Sénégal ci élection locale yi problème mais Macky Sall lu muy bañ mooy cohabitation c'est-à-dire mu perdre élection mu perdre élection législative de deux choses l'une mooy fexe ba pousse élection locale yi élection législative yi bu ñëwee mu jëm ko xool mu mu pexe pour dàq ko pour mun a def. Euh, maanaam yow da nga bëgg danga nga jàpp ne dafa jël bëgg jël fi mu war a def élection législative organiser fa ay élection local voilà au fait pexem bi yëpp loolu la fi mu bëgg def élection locale mu fi mu bëgg fi mu bëgg a def élection législative mu def fa élection locale fi def élection nag mu pousse ko yóbbu ko soit soit mu pousse élection législative yi. bu bu xësee nag bu pousse élection législative bi xamal ne ñaari mbir mooy am soit de day day day day jumelé ñaar ñaari ou bien day pousse day organiser élection législative après dina day pousse ak élection législative te te élection présidentielle te loolu baaxul Sénégal dafa toll foo xam ne dafa nekk ci crise bu doy waar. te à tout moment le Sénégal peut basculer. d'accord mais mais mais mais Gaoussou Koma yow euh, même tey par exemple tey Macky Sall man na leen wax ne leen 2022 dinaa organiser élection locale même yéen bu ngeen ci d'accord te même bu ngeen ci d'accord instant ñu wax ne moom mooy locale bu demoon tey ba 2000 yóbbu ko ba 2022 mën naa taxaw ne damay coupler élection locale ak élection législative gars ne techniquement mënut a nekk Sénégalais yi xamuñu yooyu a bañ waaw moom la xam nga euh, local yi moom ah lu mënti am fala budd day am. soo amul lu ngeen def. non non yi day am. ban taxawaay ngeen am. noo xam nga ñun dañoo am kilifa mooy li ma la wax ñun am nañ ay taxawaay yoo xam ne dañ ci tàmbali woon te ñun jàpp nañ ne revendication yi ñu jox sëñ bi mooy que ne ñun soxlawuñu dara ci mag yi soxlawuñu daram xam nga lu ñu bëgg mooy li nga xam ne yoon may nañu ko yoon may ko ko moom mooy le respect du calendrier républicain c'est-à-dire mooy euh, nguur yàlla moo ko joxe Macky Sall bi yàlla dogalee ne dafa war a yàlla da koo jël teg ko ci kanamu sénégalais yi dugal ko ci xolu sénégalais yi bi yàlla nammee ne dafa war a jógee yàlla daf ko daf ko fi génnewaat génnewaat ko ci xolu xolu sénégalais yi waaw mais je pense pas que xam na ko ndax Macky boo gisee ni muy dox nii ñoo ko may lii ñun nag dañuy déglu sëriñ bi ndëgam sëriñ bi wax am na nu mu waxee ñun dañuy dal waaye li nga xam ne ñun ñoo ko moom mooy moom mu respecté le calendrier républicain ñun wax nañ ko sëriñ bi di ko déglu bu demee nag ba nga xam ne ne daa jéggi yoon bu boobaa ñun ñu wax ci ñu responsabilité. d' accord léegi euh, mbokk yéen a ngi déglu réew mi FM Gaoussou Koma la ñu invité moom mu nekk membre ci coalition jot na euh, yor lépp lu jëm ci wàllum relation extérieure mais yéen opposition bi euh, manifestation yi fi amoon du manifestation yoo xamante ni tey ay militants partie ñoo ko def wala ay politiciens ay hommes politiques askan wi ñoom ñoo wàcc ci mbedd mi ak ay raisons yu baree baree bare yu wuute est ce que yéen tamit tey. ndax tey euh, bu ñu doon bu doon fubal la mën nañu wax ne yéen da ngeen a nekk ci seen temps fort est-ce que bëggu leen a nag exploiter euh, li nga xamante ni tey ndax mooy instant bi contexte bi ñu nekk nii ñu baree bari ñoo ngi jàmbat dëkk bi metti na li ñu reproché président Macky Sall bëri na est-ce que moo tax ngeen bëgg koo xoj euh, bëgg kut ko kut ngeen ne da ngeen organiser ay élections locales ndax yéen sax taxawaay bii ngeen am ni amu leen ko woon. avant manifestation yi di am ci lu jëm ci wàllum élection locale yi gis nañ ne depuis que manifestation yi am yéen opposition bi da a gën a sëkkatal ki nga xam ne mooy Macky sax lan moo waral loolu. waa xam nga loolu lépp lu ko waral mooy euh, man wax naa ko samay débat télévisé yu bari mooy mag Macky dafa yàgg sous-estimer la population sénégalaise Macky dafa def ne ne euh, sénégalais yi dañ ko ragal. gis nga nit bu fekkee ne yàlla daf la jox réew réew bu mel ne Sénégal mu nekk réewu jàmm réew boo xam ne ay nit ñu am valeur ñoo fi am. ay nit ñu xam àdduna ñoo fi am ñooñu li la warloo ak ñoom mooy nga leen mag yi dafa am loo xam ne ne eh, réew dafa baax ci stabilité réew mooy un état de droit Macky dafa dem ba dafa dafa dafa dafa dafa ñàkkal au fait dafa discréditer la justice à tous les niveaux dafa dem ba sénégale tey boo ko waxee police mbaa nga wax ko prison mbaa nga wax ko kii pour moom c'est c'est une banalité bon benn affaire la boo xam ne garaawul ko bon garaawul garaawul c'est-à-dire ku mu neex Macky Sall di doomu aadama yi di leen toroxal nu mu ko neexee di def ko lu ko neex ci réew mi mais nga def ne loolu tey bu amee beneen affaire bi mooy euh, l'emploi des jeunes xal ndaw yi nga xam ne tey waroon nañu am yaakaar yow nga ne nga dig ndaw ñi ay millions et des millions d'emplois nga ñëw loolu yëpp gisuñu ko lu ñu si gis mooy ñi ànd ak yow di di këpp keesu keesu keesu réew mi di am c'est-à-dire boo xam ne en un laps de temps très am fitu jàkkaarloo àdduna sëpp na leen man de am na si rapport yoo xam ne man maa jël sama sama kut bi ma teg ko ci ndax lan ñooñu man lañ àndal ku ànd ak yow nga du nga nga nga lu ko neex lay def ku ànd yow ak même bu deful dara nga nga nga nga dóor ko waaye leneen li gën a doy mooy yow ñi fal la pour nga tegal ñu ay élection libre et transparent euh, transparente yow loolu sax mënoo ñu ko defal mais nga def ne laa somme de tout ça là mooy tax. réew mi mooy tax yëf yi explosé loolu nag mooy danger bi xam nga tey politi politique politiciens yi les politiques tant que ñu ngi génn di wax di kaas am na benn vitalité démocratique bu am loolu ba léegi c'est gérable mais bés bu population bi demee ba ne doy na comme li xew nii loolu nag mooy danger bi te loolu loolu la Macky loolu la mag sàll comprendre que ne mooy danger bi sa à dire yi ñoo dem bu bëggatuñu mu bëggatuñu Macky bëggatuñu sax la personne parce que dem nañ ba xam ne ne kii lépp lu leen di wax du am. deuxièmement mooy que ne nit la boo xam ne nekk lu fi sénégalais yi occidentaux yi la fi nekkal te loolu dafa metti xol loolu dafay metti xol loolu lool il est temps il est vraiment temps que Macky Sall stabiliser situation réew mi xam nga naka la koy stabiliser. waaw mais Gaoussou waaw Gaoussou li ma la laaj euh, tontu woo ci li ma laaj mooy réew mi dafa yëngu manifestation yi am ñëpp jàpp ne euh, ndaw ñi wàcc si mbedd mi. Macky Sall sax soppi na discours keroog ba muy def discours est-ce du li dama ne yéen da a nekk da ngeen a moome vent comme ni ñu koy waxee moo tax tey ngeen bëgg xam ne contexte bii nii du contexte bu favorable ak Macky Sall moo tax yéen opposition bi ngeen ne coûte que coûte dinañu amal élection yi. waaw mais xam nga l'opposition est beaucoup plus intelligente rek parce que opposition bi dégluwuñu seen bopp à la différence de Macky Macky boppam lay déglu opposition bi population bi lay bi ñooy doxal réew mi loolu boo ko comprendre doo dem. ñun on a compris que ne population bi lan la bëgg à l'instant T mooy ñu dem élection population bi lan la bëgg mooy Sénégal am nekk un état de population bi lan la bëgg mooy ndaw ñi am liggéey population bi lu mu bëgg et cetera et cetera c'est-à-dire njariñu population bi ñun leer nañu ne ñun ci loolu la ñuy taxaw Macky nag il n'a pas compris ça tey boo gisee coolu lu muy bari bari bari bari cest dire il a repris les mêmes choses les mêmes erreurs mooy lan génn ay milliards organiser ay meeting mais xoolal fan yi ñaata meeting la ñuy organiser ay centaine de millions ay 150 millions ay 200 millions jël xaalis bi fu mu nekk nii fépp foo dem ñi ngi foofu tas alors que ne xamuñu ne ñi ngay wax noonu peuple sénégalais yi nga xam ne ñoo génnoon sénégalais yooyu ñooy dem voté ji mais sénégalais yooyu leen au lieu que ñoom ñi intelligent xam na ne yoon bi ñu jëloon baaxul non ils reprennent les mêmes erreurs ils refont les mêmes erreurs loolu moo tax euh, mag yi mm-hmm. pour mu am li mu bëgg ci réew mi te ñun ñu njortoon ne situation yi am fan yi dina ko changé gis nañ ne ne Macky il n'a rien compris. mais mais gëstu comment yow yow yaa gis que ne Macky deful dara ci ndaw ñi wala liggéeyul mais gis nañu fi euh, ay structures yoo xamante ni teg na leen ay DER ma ngi fi ay ANPEJ ma ngi fi am na benn euh, li nga xamante ni ab conseil national de la jeunesse boo xamante ni euh, Macky Sall war na ko organiser. Euh, yooyu yëpp ak jéego yooyu mu teg noonu ak li mu def ci agriculture agriculture mën a créer li nga xamante ni ay emplois la euh, loolu nga bëgg a taxaw bëgg bëgg a ŋàññi loolu loolu est-ce que xel nangu na loolu. no en fait euh, xalaat bi moom wax dëgg yàlla foofu le président Macky Sall dafa def dafa dafa dafa dafa def li ko sénégalais doon xaaree ndax xam nga man dañuy wax ne ñun nekkuñu dañuy sànni xeer pour sànni xeer dañuy wax en tout objectivité mooy que ne tey boo jëlee lu mel ni Prodac tey boo jëlee lu mel ni DER ay ANPEJ ainsi de suite ainsi de suite ay idée la yoo xam ne ay xalaat la yoo xam ne ay xalaat yu positif la ay xalaat yu baax la ay xalaat yu rafet la waaye le côté opérationnel mooy poser problème tey boo jëlee par exemple cas bu mel ni DER mais DER waa jooju euh, euh, xaw ma Pape Sarr Pape Amadou Sarr mais kooku dafa yeb Sénégalais yi c'est-à-dire naka la mën mënee jël autant de milliards foofu le président Macky Sall dafa def liggéey bu rafet parce que jàppale ne war na mën a jàppale ndaw ñi mais liggéey boo ko boo ko joxee lu mel noonu ñi jël responsabilité yu jox la ko jëlal cas bu mel ni Pikine nee na Pikine dugal na fa xaw ma 3 xaw ma 5 milliards. mais loolu am na dugal nga Sénégal nee nga jox nañ la 60 milliards tas nga ko ci réew mi mais loolu yomb na xam nooy def da ngay créer benn base de données boo xam ne Sénégal yëpp dañ ciy am accès képp koo xam ne ne ndax tamit nit ñi ñooy daw di ñaan. di di di di dañoo dañoo dañoo bëgg ci alal boobu. pour financement boobu pour liggéey. mais képp koo xam ne jot na si finance bi nga ne diw ah diw ah diw ah diw diw jot na diw jot na diw jot na diw jot na man mii nekk ci banlieue bi man am naa samay ndaw yoo xam ne dañu am ay projet mais pas Abdoulaye Der message message naa ko message bi mu ngi nii mën naa la ko wan. pour lan pour ne dama bëgg ñu toog parce que dañu am ay ndaw yoo xam ne ci Pikine lañ bokk ci banlieue bi lañ bokk. ay ay waaw message baa ngi nii nii ay liggéey ci liggéey lañ bokk li ñu bëgg mooy. mooy mooy mooy mooy mooy ànd mooy jàpp ci gis nga message baa nekk nii. tontu sax defuma ko pour lan pour ndaw yi mu jàppale leen ndax bañ a nekk ay affaire parti le président Macky Sall moomul xaalis bi mu ko ko jox moom xaalis bi xaalisu Sénégal yëpp la donc xaalis boobu ñun dañoo am ay ndaw yoo xam ne ay liggéeykat lañ ay jàmbar lañ leer nañ ne ñooñu bu ñu amee as ñu organiser leen ñu ñoo leen bindal projet jàppale leen di leen di leen appuyer ak suñuy doole suñu doole suñu doole néew mais ñooñu nga jàppale leen comme ñi ngay jàppalee xale yi maintenant ku ci fayul nag yoon bu ñëwee bu ku ci fayul boobaa ñu xool naka lañu ñuy def ba ba recouvrer mais alal boobu nga jël ay milliards et des milliards ñu jox la ko yow nga jël ko jox ko man gis naa un maire boo xam ne jox nañ ko 17 millions moo ma wax ci làmmiñ boppam ne moom jox nañ ko 17 millions mais 17 millions yi dañ ko daf ko financé xaw ma daf ko jox lan daf ko jox lan alors que ne tey am na ci ñeneen ñoo xam ne ne soxlawuñu 17 millions xam nga lan lañ soxla peut-être benn 500 million pour gën a doxal seen lu ñu soxla ci loolu mooy transparence ci alal boobu xam nga loolu lépp la moo mooy euh, un de droit la ñuy ñëwaat parce que tey les corps de contrôle bu fekkoon ne ne bu ñu defee seen liggéey normalement def seen i rapport yu OFNAC def rapport am yóbbu ko jox ko le président de la république le président lu ci teg euh, concam day jël rapport yooyu yóbbu ko procureur diligenté ko bu boobaa ñoom ñi ngay yor alal réew mi dañ koy tegal ci yoon affaire agriculture Prodac bi ngay wax noonu mais loolu idée boo xam ne mais idée bu innovant la man bu ma rafetlu la mais niñ koy niñ koy niñ koy doxalee ci finalité bi ay dañ ci gis ay nit bo nit Sénégal rek ngay gis ñu jël alalu ay milliards réew mi jox la ko ngir ngir ngir ngir ay projet bien défini bien déterminé nga jël ko nga lekk ko tey dama lay jox beneen cas bu simple xoolal cas Yëmbal noor Yëmbal Nord Macky Sall dafa def benn acte beneen acte bu rafet mooy dafa jël 23 hectares may ko waa commune bu Yëmbal noor pour lan pour ñi nga xam ne ne seen ay impact lañ ndox mi ba léegi ba fi may waxee nii mu ngi seen i kër pour ñi nga xam ne ne amuñu fu ñu dëkk pour ñi nga xam ne ne ay ñëw di pour ñu xool naka lañ leen jàppee naka lañ leen ba Yeumbeul am ay aire de jeu mais mair bi ak gars yi nu ñu def mais maire bi yow foo gisee Sénégal un maire buy dagg ay terrain non seulement di ko joxe mais di joxe conseil municipal ay terrain benn terrain boo xam ne quinze à 20 millions lay jar. alors que ne am na si ñoo xam ne ba fi may wax ak yow nii ñi ngi ci biir ndox mais il suffisait nga jël 100 personnes ba 200 personnes nga génn leen mais loolu da ngay jàppale le président Macky Sall. donc c' juste pour te euh, ñu ñëw si. Euh, Pape Amadou Sarr tuuti DER. ndax dafa am député bu mu dula tudd euh, euh, mhm. Mamadou Lamine Diallo. Mamadou Lamine jàllo bu tekki. Mhm. moom dafa wax fan yi ne dafa am benn commission d' enquête. boo xam ne dañ ko see war a euh, dañ ko see war a teg moo wax ne sax pour ñu pour ñu auditer li nga xamante ni tey mooy plus de 60 milliards yi nga xamante ni wax na ne euh, Pape Amadou Sarr wax na ko mais euh, weer yële si ginnaaw tamit déggoon nañ député Aïda Mbodj wax ne dañu war a fësal liste bénéficiaires yi moom ngay wax nii kon yow danga nga d'accord ne dañu waroon def benn genre plateforme boo xam ne tey képp koo xamante ni financé nañ la Sénégalais dañ si am dañ si am accès loolu bëgg a wax waaw mais mooy li ma lay wax rek xam nga Amadou Pape Pape Amadou Sarr bu deer dafa dafa dafa respecté wul man pour man le président Macky Sall bi nga xam ne moo jël responsabilité yi jox ko la respecté wul waaye respecté wul les sénégalais c'est-à-dire mënoo yor autant de milliards mënoo si jël benn 10 millions mbaa 15 millions teg ci plateforme boo xam ne lépp lu ñuy def dafay leer en toute transparence alal boobu fu mu dugg am na ñoo xam ne dañ ne gars yi dañuy jël ay nit ay booy xoolal da xam benn booy na ko booy fiis montel benn projet bu gaaw booy bi dem monté benn projet ñu jox ko ñu ñu ngi koy vérifier nag amaguñ ci lu leer ñu jox ko ay yenn xam nga rek yaa ma xam ak ñun ci banlieue bi lañ dëkk dañuy waxante nit ñi booy bi dem ñi financé ko no booy boobu jël jël jël moitié xaalis dugal ci poosam leneen li yow mu jox la cest à ay dil ay yëf yu tàppale yu garaaw a garaaw a moo fi nekk alors ne dans la banlieue am na si ay gune yoo xam ne tey boo jëloon man tey Macky Sall bu jëloon 5 milliards jox ma ko ne ma jàppaleel toute la euh, la jeunesse de la banlieue ma ne dootoo gis xale boo xam ne day nekk ci banlieue bi di am problème liggéey yow ñu jël 60 milliards jox la ko pour le Sénégal defoo ko Mamadou Lamine Diallo lu mu yor daf ko xam di ko nuyu au passage sama nijaay boobu. nit la boo xam ne nit ku intègre la ku am ay valeur la ku xam njariñu Sénégal la moo tax mu proposé commission d' enquête parlementaire ma ne Ablaye Der dafa war a leeral sénégalais yi xaalis bi nga xam ne moom ko moom lañ ko ko jox et dans les plus brefs délais ñun dañu ñu ngi préparé conférence de presse te dinañ dinañ porter plainte contre lui au niveau de nag xam nga pour lan pour mu leeral ñu xaalis bi nga xam ne dañ ko ko jox mën a dugal na ko surtout dans département de Pikine nga xam ne ñun di fa yeewoo gis ay ay. famille yoo xam ne gis ay jigéen yoo xam ne il suffit juste nga organiser leen jox leen tuuti xaalis ils vont réussir ñi bëgg a dem donc loolu. kon yéen coalition jot na dañ ko bëgg a porter plainte. waaw non waxuma coalition jot na nga au niveau de la banlieue dafa am ay ñoo xam ne ils sont dans l'opposition dañuy waxtaan suñu biir loolu du ngi nekk di gëstu ñi ngi nekk di di ay information di xam fan lañ jëm bu ñu dajalee yooyu yëpp après dañ ko yóbbu Amadou Der. Pape Amadou euh, Sarr. Pape Amadou Sarr xaalis bi mu jël ne daf ko dugal ci biir Pikine dugal ko ci Sénégal Sénégal bi yëpp sax ñun mënuñu ko contrôler waaye xaalis bi mu dugal ci biir Pikine ñun ñu ngi ciy gëstu te sori nañ ci lool lool lool lool lool te incha allah bu ñu paree li ñuy tënk lépp dinañ dem ba ci moom ndax nag comme que nangu ñu jël téléphone buñ ko owee du jël buñ ko envoyé message du répondre nañ jaar fi ñu yoon may ñi dem of nag wax leen ne ah ñun de bëgg nañ ngeen soytuñu lii of nag bu ko deful ñun on organiser des marches pacifiques parce que loolu nekkul problème mu Macky Sall parce que bu du du dama ne du lépp lu jëkk lu lépp lu xew ñu xëcc ko certes nag c'est le chef de l'État moom moo ci waroon mën a jóg jóg bi mooy lan mu waa waa nag oo oh, waa gis nga ñii CREI war na war na fa dem xool nag war na fa xool Cour de comptes rapport IG ñëpp war nañ tam ñu xool xaalis boobu kan ak kan moo si jox bés bu ñu xamee maa la wax nag beneen affaire tey mu leer gis nga liste bénéficiaire yii ngay dégg bés bu génnee yuuxu dina di dina ju foo ko fegul parce que am na si ñoo xam ne ne jot nañ ci jotati ci jot ci jotati ci jot ci jotati ci te jot bi ñu si am te c'est-à-dire non seulement waruñu jot mais jot gi ñu am alal boobu feneen ak feneen ak feneen lañ ci dugal ñii di ci jënd ay chambre à coucher ñii ci jënd ay téléphone ñii ci jënd ñii di ci jënd ay salon xaalis boo xam ne dañ ko war a liggéey pour fayaat ko xaalis boobu lañ bëgg papp Amadou Der Pape Amadou Sarr mu leeral xaalis bi te man gaw su Gaoussou Koma maay wax moom xaalis boobu dina ko génn ci nii ou dina ko génn si naa incha allah. jërëjëf euh, Gaoussou Koma yi mbokk yéen a ngi déglu réew mi FM seen émission pencum réew mi ci rajo réew mi FM mais Gaoussou ñu dellu si ci benn point rek ci élection locale yi doog a jàll feneen euh, yéen élection locale yi yéen opposition bi am na benn euh, résolution boo xamante ni tey majorité bi pare na pour signer leen ko ñoom nee nañu yéen su ngeen d' ñu organiser élection yi ci 2022 ñoom dinañu signer benn résolution boo xam ne dinañ ci wax ne dinañ organiser élection législative yi ci même année boobu ci même deux mille deux mille vingt deux boobu noonu ñoom euh, garantie yooyu ñu leen jox noonu est-ce que waru leen mën a doy. waa mais xam nga man tey dama bokk ci euh, coalition jot na ba pare damaa bokk ci lu ñuy wax euh, front national bi te wax dëgg yàlla lépp résolution boobu noonu dañuy waxtaanee suñu biir ndax boo bokkee ci ab ensemble. waroo nekk benn élément boo xam ne da ngay wax ci biti ñun li nga xam ne mën nañ ko mooy lépp loo xam ne waxtaan nañ ko front bi mu nekk njariñu Sénégal mu nekk njariñu Sénégal ñun ànd nañ ci lépp loo xam ne ne leer nañu buñ ko buñ ko buñ buñ buñ ko buñ ko defee dinañ mën a respecter le calendrier républicain ñun ànd nañ ci loolu ñun ci loolu la ñuy yëngatu te ci loolu lañ gëm ndax dañu wax ne ne ñun dañoo bokk suñu gëm na ne Sénégal euh, war nañu weesu euh, jamonoy coow jamonoy xeex jamonoy xuloo Sénégal fi ñu toog mooy ñi dem élection ñi man ñi gagné gagné ñu war a gouverner gouverner ñu war a opposé opposé wu bu ñu jógee foofu nag ñu xool naka la ñuy xalaatee ñun ñëpp ah, ñu nekk opposition bi ah ñu nekk daal le pouvoir ñun ñëpp ñu nekk benn say xool naka la ñuy def pour pour Sénégal avancé Sénégal on a tout pour pour réussir on a tout pour avancé mais lenn rek moo ko moo tax réew mi du mun a avancer réew mi du mën a def mooy politique politicienne dafa am ñoo xam ne ne dañoo ñàkk jom nanguwuñu liggéey pour ñoom ay million ak ay milliards politique moo la koy may ñooñu ñoo yàq réew mi ñooñu nag il faut que sénégalais yi xam ñan la ak ñan la ñu simple leen teg leen fële ñun ñi nga xam ne tamit ñoo nekk ci opposition bi ñu ñu xam ne ne sénégalais yi sas nañ ñu won sénégalais yi génnuñu ngir ñun sénégalais yi xeexuñu ngir ñun sénégalais dañoo xeex ngir ñoom seen situation avancé loolu nag ñun waruñoo nangu sénégalais yi gën ñoo nekk sénégalais sénégalais yi gën ñoo gore ba tax na lépp lu ñu war a mën a def ci lu positif ñun war nañ ko mën a def léegi ñu wax ci euh, bala ñuy jeexal li nga xam ne tey moo jëm ci wàllum ethnie wàllum xeet wàllum euh, di boddi yenn xeet yeeg euh, mbir yu demee noonu coow li xawoon a jóg fii Sénégal yow lan moo ji sa xalaat waaw amee xam nga loolu euh, man jàpp naa ne euh, képp ku ci wax di si coow di si yuuxu kooku daa xamul lan mooy Sénégal Sénégal kooku daa xamul lan mooy Sénégal man waa Casamance laa soose la sama papa soose la waaye sama yaay bi ma jur sama yaay pël la pël 100 pour cent mën naa ne bu dee pour 300 pour cent am na waaye sama yaay pël 100 pour cent la sama papa soose la 100 pour cent mais man. booy ndakaaru laa lébu yi ñoo ma yar man lébu yi ci lébu yi laa yaroo ba fi ma toog ci lébu yi laa juddoo ci lébu yi laa màggee ci lébu yi laa yaroo léegi man kat moo ma kan moo ma mën na dugal sama sama jabar di olof ma nekk murit sama yaay nekk tiijaan samay rakk nekk ñaseen samay ndijaay nekk xaadar ma am sax ay ñi may ñi may fréquenté suba ngoon gudde ba ci samay xarit ñi nga xam ne ñoom laay nekkal du ñu sax ay jullit ñu may liggéeyal du ñu sax ay jullit yow tey nga bëgg ma dugal sama bopp man mii sénégalais juddu ci ci ci ci ci conditions yi circonstances yi nga bëgg nga bëgg ma gis nga loolu képp ku koy def da nga xamul Sénégal waaye lépp tamit ci yow lay këpp ah. nga Sénégal mooy réew boo xam ne képp ku fi indi wàllum xeet wa tey boo nee pël ou bien nga ne pël yi ak soose yi ou bien pël yi ak joolaay mais man kan moom ma ëppale si joolaay sama sœur bi ma bokkal benn yaay joolaa la samay samay sœur ñii ay pël la ñii ay olof la ñii ay kii donc Sénégal moo bindoo noo xam ne dañ ko tënkee noo xam ne yow dangay dem ba sax euh, buñ la nee lan nga da naan lépp laa sénégalais laa man olof olof laa. parce que boo déggee olof mooy que ne yow pël nga soose nga joolaa nga mankaañ nga saraxule nga lépp nga sama jabar sama beneen jabar bi saraxule la. mais yow kan moo ma mën a génne man ci ci ci cadre boobu kan moo mën a génne beneen sénégalais ak beneen sénégalais Sénégal dëkk la boo xam ne képp koo xam ne ne yaa ngi fii ñëw di ci di ñu jéem a wax ay wax yi waasox ay wax yi et neex ay wax yi xaw ma la nax la nax la nax la nax kooku xamoo réalité Sénégal te bu fekkee ne bitim réew nga jógee boo ñëwee fii nañ ko jëflante yow bu fekkee ne ci biir réew mi nga nga nekkit nañ ko jëflante man dama jàpp ne ne ñooñu dañ leen war a jàpp dañ leen war a sax génne sepp leen génn ci. léegi ñuy wax force occulte yi nag. waaye ñoo ñoo ne force force yi nekk ci réew mi ñoo wàccoon ci mbedd ma ay waxi naka sa kandang la c'est juste pour se justifier rek mais ñoom ñoo la gën a xam ne ne force xale yi ñu gis nii manifestation yu am nii ku jàpp ne force occulte la ou ngay wax ay waxi neneen Ablaye Wade bu njëkk bu manifestation daan am loolu la daan wax daan wax ne force occulte la lool la daan wax rek dafa daan wax ne daf ñu infiltrer moom sax infiltration lañ doon lañ doon kii ñii ñëw daan ay force occulte loolu amul fi tey amul fi suba sénégalais ñoo génn ne ras le doy na doy na bu fekkee dañoo jàpp ne ñeneen ñoo jóge feneen di di di làkk ay chinois mbaa ay japonais bu boobaa ñoom xamuñu li xew xam nga li xew lan la nañu teg si Sénégal dans un état de droit ku tooñ ñi xam ne ne yaa tooñ ku tooñul ñi xam ne ne ah, tooñoo. mais est-ce que yéen jàpp ngeen ne président Macky Sall war naa bañ a def beneen mandat. non mais loolu moom ci boppam moo ko wax Macky Sall ci boppam xam nga dafa am loo xam ne jaratul sax ñu koy posé Macky moo ne man maa tëggee constitution bi noo xamee ne def naa sept yi may def nii. bu ma demee 2019 mooy nekk sama deuxième mandat de cinq ans amatuma droit nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs Macky Sall moom moo ko wax moom ci bopp moo ko génne. waaye mais mais Macky du constitution bi quand même. waaw mais xam nga Macky mais Macky moomul constitution ba li mu wax rek. xam nga tey le président de la république il incarne la constitution c'est-à-dire loolu kenn mënu ci dara président de la république waxam waxu président de la république. loolu bu fekkee ne Sénégalais dañu dem ba di ko banaliser loolu ça devient trop grave Macky Sall tey normalement bu waxee ne ne. élection dañ ko war a def en deux mille vingt et un décembre deux mille vingt et un boobu amul décembre deux mille vingt et un sax kooku waratul nekk président bu Sénégal parce que la parole d'un chef d'État est sacrée. donc Macky Sall bu taxawee devant tous les sénégalais wax leen ne naa def lii naa def lii wax leen ne man dootuma defat du duma def troisième mandat yoon mayu ma ko dara mayu ma ko tawaat ñeneen di wax naan est-ce que mën na ko def loolu mooy ñooñu sax magsal Sall yebul sénégalais yi waaye ñooñu di ko wax. jërëjëf euh, Gaoussou Koma ñoo ngi lay sant la gërëm lan ngay tàggoo. waaw may tàggoo mooy euh, di ñaan yàlla euh, weeru koor gi ñu nekk yàlla nañ ko jeexal ci jàmm yàlla def jàmm ci réew mi yéene gi nga xam ne ne le président Macky Sall am na ko eggale ko ci réew mi ci jàmm jóge abal ñu ñun ñu ñëw toog gérer réew mi yàlla na ko yàlla def ci jàmm Sénégal nekk dëkku jàmm ñun daal lépp lu ñuy dox ak lépp lu ñuy ñaan ci réew mi mooy mooy mooy mooy réew jàmm di ñaanal sénégalais yépp weeru kooru jàmm ak yàlla na yàlla def tamit ci poos yi dara ba ñu am lu ñuy ndogoo saa su ne jërëjëf euh, Gaoussou Koma mbokk yi moom la ñu invité woon mu nekk membre ci coalition Jotna yor fa lépp loo xamante ni jëm nañ ci wàllum relation extérieure moom la ñu invité woon tey ci seen émission pencum réew mi ngeen di sànd ak Abdou Khadre Seck ci réew mi FM samedi bu jot ñetti waxtu jàpp ñeenti waxtu Mamadou Diaw Diallo moo nekkoon ci wàllu machine bi jërë ngeen jëf jàmm ak jàmm.